dem fu leen si àdduna sa protocole bi ku jigéen ci lu mu wax si yow métti na de Macky Macky Sall sa protocole te léegi am na jëkkër te mu dëkk si département de Pikine loolu ñi nekk si entourage bi xam nañu loolu man affaire laa nekkoon billahi wallahi wataalaahi ak yàlla bu ma ñibbi si Sénégal man du ma waat si sëriñ alxuraan laay waat barki alxuraanul karim kooku dugal na sunu nopp ne Macky Sall yow sëgg si mu sëgg di la màccal loolu rek la doon rey si moom ba mujj bi Marème Faye Sall daf ko écarté palais bi mujj bi lañ ko mujj may jëkkër barki alxuraanul karim loolu dugg na suñu nopp te kenn waxu ko ku dul sa protocole boobu ngay àndal ñépp xam ko muy Sara Diémé di def Pikine numéro mu WhatsApp am naa ko dañuy déggante loolu am na entourage bu ko xam ñu mot dix personnes parce que moo ubbi gémmiñam wax ko Macky Sall ni ngeen ko gis ni ku ko màccal rek la bëgg barki salaatul faatiha moo ko barki alxuraanul karim moo ko da ngeen boobu sa ma tuuti rek may leen ma rek voilà je suis peur là pour peur waay Fatou man daal je suis peur Macky Sall yow réew pour être réew yow reewuloo jëmeñ ju ubbeeku boobu mel ni jëmeñu pélican del saaga saaga nga mun ma dama lay yóbbu vaar du ma la saaga du ma yow du maag yow non never du ma ak yow man maay jeegu caterpillar c'est pas pour rien ma tuddee sama bopp caterpillar yow tamit c'est pas pour rien ma tuddee sama bopp caterpillar yow caterpillar boo xamante ne kenn mënu koo délosé yow albafta bu mel ni yow illettré bu mel ni yow. kamoon taawoon mu mel ni yow xoolal ba may wasani may zonglee sama kaw fëtë yi yow yaa may ñëw yow yaa may ñëw yëngal yow yow da nga xam kuy faa man may Fatimata bintu yaa Rasulullaay man da ngay ñëw ma yëkkati laa nga bëgg a day sama bopp bi ma wàccee sa ndey ba nga laal suuf utee ma bëz pare naa ci yow nag pare naa ci yow kay ma mu des si sama gars yi. des kañ. Macky Sall ak sa nguur. waaw. billahi wallahi wa taalahi yàgg yàgg di nga kat sa lëfal nday wàcc si suuf. ëppatalaw. Macky Sall. waaw yàgg yàgg di nga toj sa cottu nday wàcc si suuf. billahi gis nga lu gars yi di saaga sa nday si suuf. Hmm. man ci kaw laay sa xonkalu nday Macky ministre sa procureur sa ministre de la justice sa ministre de l' intérieur waa gendarmerie waa BIC. wa section de recherche wa police sen yeen ñep sen tunu tunu ciotu dafat ndey ñun ñoko kat katt la fal wax fi depuis France lu ngeen mën ci ñun kat leen ko ndeem def ñun xola bañu ñu kat la fal ndeem fu mu ne ni bes mu ne ñu wax leen ko bésub dundu du bésub de bésub de du bésub dundu toj sen ciotu ndey dafa kat la fal ndeem jot suba ba legi dama nek ndey ci liggey bi aw mon sen tunu ndey jot ma nga dogo wacc wàcc ni ma nga ni ci mbedd bi ni couvre foog mu des si anal yi sama gars yi. partagez leen partagez leen s'il vous plaît partagez leen maximum. wa taala sa lëfal nday wàcc si suuf. Macky Sall yàgg yàgg di nga toj sa cottu nday wàcc si suuf. billahi gis nga lu gars yi di saaga sa data nday si suuf. Hmm. man ci kaw laay saaga sa xonkalu nday Macky Sall. Hmm. yow say ministre. sa procureur. Hmm. sa ministre de la justice. sa ministre de l' intérieur. waa gendarmerie. waa BIC. waa section de recherche. waa police ak seen yéen yëpp seen tuunu tuunu cottu dafab ndey. ñun ñoo ko katt la fal ndey wax. d'accord kii di woote nii da di bàyyi woote bi. wala bañu ñu katt la fal ndeyam dee fu mu ne nii bés bu ne ñu wax leen ko bésub dundu du bésub dee bésub dee du bésub dundu toj seen cottu ndey dafa katt la fal ndeyam jot. suba ba léegi dama nekk ndey si liggéey bi aw moon seen tuunu ndey jot maa ngi doog a wàcc ndeyam nii maa ngi nii si mbedd bi ni couvre. gaay mu des si anali sama gaay Macky Sall ak sa nguur billahi wallahi wa taalahi yàgg yàgg di nga katt sa lëfal nday wàcc si suuf Macky yàgg-yàgg di nga toj sa cottu ndey wàcc si suuf hmm. billaahi gis nga lu gaay di saaga sa data nday si suuf hmm. man ci kaw laay saaga sa xonkalu nday Macky Sall yoog say ministre hmm. sa procureur sa ministre de la justice sa ministre de l'intérieur waa gendarmerie waa big waa section de recherche waa police ak seen yéen yëpp seen tuunu tuunu cottu datat ndey ñun ñoo ko katt la fal ndeyam wax fii depuis ah depuis France lu ngeen mën si ñun katt leen ko ndeyam def ñun xoola bañu ñu kat la fal dee fu mu ne nii bés bu ne ñu wax leen ko bésub dund du bésub dee bésub dee du bésub dund toj seen cottu ndey dafa kat la fal ndeem jot suba ba léegi dama nekk ndey si liggéey bi aw moon seen tuunu ndey jot maa ngi doog a wàcc ndeyam ni maa ngi ni si mbedd bi ni couvre léegi gaa yi jot ngeen booba ñu dem ci màcc bi màcc bi màcc bi màcc bi màcc bi <laughs> bu leen fàttee bi ki defa waa lu rëy de match bi. protocole bi ngay àndal di dem fu si àdduna. sa protocole bi. ku jigéen ki. lu mu wax si yow mettina na de. la mu wax. Macky Sall. lan la waa Macky. sa protocole. te léegi am na jëkkër. te mu nekk si département de Pikine. loolu ñi nekk si entourage bi xam nañu loolu. man affaire laa nekkoon. billahi wallahi wa taalahi ak yàlla bu ma ñibbi si Sénégal man du ma waat si sëriñ alxuraan laay waat barki alxuraanul karim. kooku duggal na sunu nopp ne Macky Sall. Ah. yow sëgg si mu sëgg di la màccal loolu rek la doon rey si moom ba mujj bi Marème Faye Sall daf ko écarté palais bi mujj bi lañ ko mujj may jëkkër barki alxuraanul karim loolu dugal na sunu nopp te kenn waxu ko ku dul sa protocole boobu ngay àndal ñëpp ko muy Saara Jéeme di dëkk Pikine numéro mu WhatsApp am naa ko dañuy déggante loolu am na entourage bu ko xam ñu mot dix parce que moo ubbi gémmi ñam wax ko Macky Sall ni ngeen ko gis nii ku ko màccal rek la bëgg barki salaatul faatiha moo ko wax barki alxuraanul karim moo ko gars yi sa Macky sa protocole bi ngay àndal di dem fu leen si àdduna sa protocole bi ku jigéen ci lu mu wax si yow metti na de Macky Sall sa protocole te léegi am na jëkkër te mu dëkk si département de Pikine loolu ñi nekk si entourage xam nañu loolu man affaire laa nekkoon billahi wallahi wataalaahi ak yàlla bu ma ñibbi si Sénégal man du ma waat si sëriñ alxuraan laay waat barki alxuraanul karim kooku dugal na suñu nopp ne Macky Sall yow sëgg si mu sëgg di la màccal loolu rek la doon rey si moom ba mujj bi Marème Faye Sall daf ko écarté palais bi mujj bi lañ ko mujj may jëkkër barki alxuraanul karim loolu dugal na suñu nopp te kenn waxu ko ku dul sa protocole boobu ngay àndal ñëpp xam ko muy Sara Diémé di dëkk Pikine numéro mu WhatsApp am naa ko dañuy déggante loolu am na entourage bu ko xam ñu mot dix parce que moo ubbi gémmi ñam wax ko Macky Sall ni ngeen ko gis nii ku ko màccal rek la bëgg. barki salaatul faatiha moo ko wax barki alxuraanul karim moo ah màcc bi nag màcc bi defe naa ci màcc bi la ah ci màcc bi la yëf xew de. ci match bi la. Macky Sall. xaar leen ma xaaral protocole bi ngay ànd nañ boobu noppil match do bi noppil. Macky Sall Macky Sall what the hell Macky Sall Macky Sall ah nga ne yow la ñuy jël nag pour nga ñëw nga toog fii nga ne da ngay ñëw dire dénigré doomi doomi nii ñi baax ñi doomi nii ñi baax ñi yow cotto tampi toogal nga xaar ma ci yow laa ñëw voilà léegi. ma bàyyi ma bàyyi màccudo bi ma ñëw ci maître El Hadj Diouf may leen ma deux minutes gars yi di woote gis naa seen appel yi dinaa leen jël suma temps bi maye you know may leen ma tuuti rek dafa am lu may dem seet dina jël seen appel yi may leen ma tuuti rek yan ñii du woote nii bu leen mer may leen ma tuuti rek madame dafa am vidéo yi may dem seet maître El Hadj Diouf laay indil varam ngeen deglu ko salopar bobu di King Kong King Kong djouf billahi. ah wallahi. ah talaay Sonko li wax day fen. ah yo nak bi. ah ah ah ah. gëm valeur. ah ku gëm dignité. ah ku gëm ngor. ah ku am bi do sa yaram. ah war nga mën and ànd. man Sonko. am na ñeneen. ah ndax ñoy ñu and tay ji di bañ ci rew mi loolu nag mbiri yàlla la. ndeysaan. nak doole man dëgg mais dëgg mooy mujj. wallaay. te parce que yi fen yi Papa Alé Niang Ahmed Aïdara ñoom li ñu wax yëpp ay kàcc la PV eh, yëpp ay ay ay ay set la. da nga di sama xarit yow yaay imprimeur da nga bëgg.

dengan ngeen Kayak ay intellectuel ngeen kan, yang yow sociologue nga. da nga am un plus par rapport aux journalistes loolu aussi yu bëri xamuñu ko. da ngeen da Golo juf, maître Xaamaan juf, maître Dof juf, maître El juf. Diouf yang jëmeñ ju tooy boobu ni kuusu bébé maître El Hadj man gis naa góor ñi ni la ñuy commencé mel ni leelu xaamaan nga xee nga nga nak. coosalel bi daa ñëw ñëf ndeyam fii la ñëw mel ni ko dëpp ki paax ci boppam bi yow ci ndong bi la leel maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf xasaw nga maître El Hadj nga maître El Diouf sa jëman ji tooy na maître El Hadj Diouf ñàkk nga fayda ñàkk nga coq ñàkk nga vagabond nga imbécile la salopard nga Ousmane Tounkara bi ngay saaga dëmb di ko traité doomu aaraam yaa ko jiitu ci rang doomu aaraam yi bëggi xam nga yow da ngaa doome ba yàlla def la mbindum doome araam mooy maanaam leen loola ba pare nga ñëw am jaal bu toll nii xaf poosu xaftaan sa jaal baa ngi xóot sa bëñi dangaa ñaf sa xool ba sa bëñi écarté wu ci duul ak martaat ba sa def nii mel ni palanteer kenn xamulooy niroo boo génnee yaa ngi ñàkk tooy xam mel ni ku doon ku doon baxal boppu xaj maître El Hadj da nga sëcc ni jeun bu ñorut na man xamna ci dara bu fa tek ne man nak maa top de sort jusqu'à Dakar ma bok ak yow avion mu jaral la nga jënd billet avion reporter li nga doonoon zigen sort dug ak man ben avion ngir sa xet bu bon bi sa sa way bi sa ñaari musuwaar yoy ngey yore boo tufulee ci bi nga jël benen bi fompoo ko ñaari musuwaar bo ci gënne rek do xam ban mo gëna a benen bi da ngay xeeñ mel ni bu ñorut man sa jabar yi di fanan ak yow lay lacc xana ñooñu. amuñu amuñu problème am est-ce que seen bakkan dañuy santir odeur man bu ma doonoon benn si sa jabar yi xoolal rek man bi nga toogee sama wet ci biir avion bi xam nga dama mujjee obligé changer sama place ak waa ji toogoon ak sama bajjeen man sama bajjeen man waa ji mu ñëw toog sa wet man ma dem toog sama wetu bajjeen nga waa ma ne la non non c'est pour kii ñu wàcc aéroport nga ne ñu xanaa nañ lan lañ lay bàyyee te man maa tax nga ñëw nga toppañu ma ne la man mosuma laa wax mais dina laa jëf yow yow nit nga yow góor nga yow yaa ngi topp Macky Sall ci dossier Adji Sarr bi mu jaral la ñuy saaga sa ndey di saaga say njaboot Maître Diouf yow xanaa doo góor yow boo jógee nga ne yow buur si Saalim xaw ma lan lan lan lan sa maam lii sa maam laa yow sa maam yi defuñu coco biir Sénégal ñoom ñoo soloon ay loppe sa maam ñoo soloon ay loppe di doon fen di doon jaay seen morom te sa xeet yi bari nañ ci ñing ci tak ci dans les différents bateaux de cale yoy ñu indi len fi def len dans duggal len dans différentes plantations yo jam nga do gor yo war nga mëna tok nga jam nga wax baxu bax Ousmane Sonko khas Macky Sall ak ñu mu andal nga delu wat encore nga delu sat encore ñoo wat encore di len yeen ay gor ngeen yo war nga mëna wat dara Ousmane Sonko yo Ousmane Sonko da la nawlawul Ousmane Sonko dalaa nawlawul xam nga amna na ñoo xamante dañuy wacc Ousmane Sonko sax mu leen di tontu indirectement ñu sa di tok ñi xam ne que ne ñoom la Ousmane Sonko di waxal mais yow ba tay Ousmane Sonko dalaa nawlawul parce que xam nga lutax maître ala Alioune nag ma jéggal nak Ousmane Sonko téggul la nit ku normal non téggul la nit ku normal de te bu la Ousmane Sonko Sonko tontu woon yow maître El Diouf man mi jeegam man ma lay bay parce que yow dafa am boulon bu desserré wu ci sa cerveau yow sa cerveau bi da ndoxé way wuloo dangay bandi bandilu ngay cippi cippilu ngay rambaaj rambaaj ngay marmar lu taat di jàng que ne yow yaay avocat bu vulgaire ngay jàng que ne yow yaay nit ku imbécile yow di nga fekk ay xale nouvelle génération du vingt et unième siècle la ñi la gën a vagabond téeméer junni yoon gën laa salopard téeméer junni yoon gën laa xoolal gën laa réew gën laa xamadi te dinañ la delloo ci sa ci sa place ñi teg fa dox la nga naan seexal la tëtin nga nga jàpp ci yow ngay dof yow ngay salopard yow koo mën a génnee ci dara génneel benn procès boo xamante ne que yow jàppale nga doomi aadama ci biir senegal kooku génne vainqueur ci ci ci tribunal ami koo faral tey koo jël tey dossier Mais da quoi koy taxawal da ngay taxaw doon avocat bu subaa ba ginnaaw subaa mën nga taxawaat encore fii nga génnee lépp li nekkoon ci dossier bi amoo confidentialité tu n'es pas professionnel est-ce que tu es avocat même moi je commence à me poser des questions man bi ma la dossier Barthélemy Diaz notre frère Barthélemy Diaz ma di ko nuyu de passage ce grand patriote là ce guerrier Barthélemy Diaz doonoon nga avocat ce dossier bii que depuis plus de 10 ans en tant que minable un médiocre avocat tu n'es même pas capable d'avoir en audience un jugement pour battre les médias. Nous am au courant de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y avait dans le dossier def nga famille fan ci problème damay affaire nga génn nga ne danga koy danga koy nga def point de presse di attaquer Barthélémy Diaz si ce dossier là en tant qu'avocat toi qui es tenu au secret professionnel yow mi nga xamante ne que yow t'as pas droit nga toog ngay wax dara li jëm ci ci ci dossier say clients yi nga doon yi nga doon yi nga doon défendre nga génn nga def ko nga ne yow trahison professionnelle yow nga bëgg nit ñi wóolu la yow dossier Adji Sarr bi sax. nga foog ne gars yi dañu la bàyyi noonu rek parce que yooyu yaa xëy rek nga autoproclamé wu xam parce que yéen bokk seen groupe imbécile yooyu constitué autour de cette gamine là bi ngeen nekk di manipuler ñëw pour nee nekk da ngeen di taqal da ngeen di gàqal tra liggéey patriote yi ànd ko ak seen leader di le président Ousmane Sonko pour nee nekk da ngeen di koy faagaagaal seen peine perte signalé leen page bi amul benn problème. mais dama leen koy benn benn page bi dañ ko restreindre amul problème sénégalais yi bu leen bu mu doon problème partage leen ma plus ma am partage restriction page bi fii balaa ñuy naan 15 jours dinañ ko bàyyi naa am 2 vues moom ma gënal may am 50 vues pour le moment xam nga ni man maay jeeg xam nga kuy fëgg mu pare ay 50 et quelque 100 et kooku bu fëggee jamono bii ngeen war a xam ne que am na li xew Facebook rek may kële hamburger na ma bàyyi rek moo ma téye na ma téye rek ma départ ngeen xool fu may dem atterrir imbécile yi yow maître El Hadj Diouf ñëpp war a mën a wax ci biir senegal yow dangaa war a fermer ta gueule yow amoo dignité kër jàmbur dangaa provoqué provoqué provoqué ba ñu dem lakk kër jàmbur boo xamante ne yow jëndoo ko moomoo ko ndekete que yow di nga rëy lamiñ yëpp di ubbi sa gat loolu ne jëmiñ sa jaal bu bon boobu mel ni palanteer bu ñu caabiloo be yaa ngi dëgg sa leel bu bon boobu mel ni leelu firaaw na xaamaan ngay duul di dajale di yak der ñi ngay saga yu bir senegal ñoo la gën ci juttu sen juroom ñaari maam yi ñoo gën sa mam sen juroom ñaari maam yi seen carax yi ñoo gën sa juroom ñaari maam yi gën la yow gën say descendant man jigeen yi ngay jigeen yi ngay tim gudi di len kat ak sa odeur yi man ñoo moo def ka xawma dañ lay wiis ki ki 45 be aruna bi lañuy cocktail di la ko pomper pour ñu baña a sentir sa odeur bi parce que man li ngay dégager rek ci odeur bu gua odeur boo xamante ni que ni bu bu at bu bu bu bu bu allen bu sakkaal bi ngay dégager rek man moom a yéem may naan est-ce que kii jigéen dina ko may mu tëdd ci wetam ba muy naan na koy tiim maître El Hadj laaj yow est-ce que du sakkaal moo la jur parce que li ngay dégager ci xet ci odeur bu ànk odeur bu bon. odeur buy jàpp nit si boo koy boo koy nooy ba si yàgg sa sa fii lay jàpp pour bi nga war ngaa mën a saaga Ousmane Tounkara wala nga ciy saaga Ousmane Sonko ngeen naan da nga koy ba di wax ay nitu Pastef yi boo nee Pastef boo dénigré les activistes ñii laay fal Ousmane Sonko ma dama ci bokk. ah oui grande sœur xaaral ma wane la yi mettez des cœurs grande sœur nee na naa leen woon nu ñuy metti nu ñuy defee cœur yi dama nekk di yàkkamte balaa si signalé waat live bi ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy effacé comme bële. bele sax xaw ma na partagé nañ ko wala partagé wuñ ko parce que j'ai pas eu le temps de bi dagg live bi ma defoon sànq boo leen ko gisut amul problème ah ñoom nañ ko dagg amul problème ma won leen premier live bi ma def ah ma fan la tollu ah Facebook de ko daggee gis ngeena ah fii ngeen di bës kër baa ngi nii fii ngeen di bës si kër yi après après pouce bu bule bi kër bi moo ci topp fii ngeen di bës. gis ngeen ko man ni ma koy bësee nii xool leen fii ngeen di bës ngeen koy bës continuer pour sécuriser live bi te ngeen may ma étoiles yi parce que étoiles maa ngi ca mille cent mille deux cent deux cent cinq étoiles reçues ci live bi rek merci beaucoup ci ñi ma may étoile ndaxte ci étoile yooyu la Facebook nar a ñoo dajale mu fay ma ko ci xaalis ma jël ko dugal ko ci social yi may def yéen a ngi dëgg kon jàppale leen ma ci kër yi pompel leen ma kër yi dóor leen ma kër yi ba ma miir laa jëf génn nga wax ñu biiru biiru Adji Sarr fan la toll maître El na dafa soxna dafa bëgg a ñibbi ci mbokkam yi Adji Sarr nee na ma jël gars yi yaa ngi woote rek waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw damay. oh Meine Liebe. may leen ma ma connecté waat lii may leen ma deux minutes rek ma jëlaat ma doon woote noonu gars yi may leen ma ma dugal beneen beneen beneen wifi ma jël bii voilà léegi mën naa leen jël ñii di woote nii mën naa leen jël yan ñooñu di woote mën naa leen jël kii woote nii bàyyi ma jël ko après ma jëlaat keneen ma jëlaat keneen ku dugg mu gàttal ku dugg rek mu gàttal bu leen fi tudd tur bu leen fi tudd sant bu leen tudd tur bu leen fi sant bu leen fi tudd tur bu leen tudd sant système ñu ngi lay déglu bul tudd tur bul tudd sant. damay sant rek damay sant rek genre yu mel ni yéen. jërëjëf merci bi ñu yàlla joxe genre yu mel ni yéen day euh, xool toppatoo hmm. bu baax. ñu ci yéen trop ci genre yu mel ni leen di sant di leen gërëm bonne continuation. merci beaucoup sister merci. jërëjëf jërëjëf c'est gentil ci bi merci. merci. Hmm. yow maître boo génnee indil ñu dossier Adji Sarr bi. wañu fan la dossier aji sar todlu bul dem di ciokas ay ñom journaliste ñom papa ale nya ñom amet ay ñom sen seen ñooñu amuñu sa jot ñooñu ñoo mujjee ñoo ci politique yo jëm nga ci côté yépp côté avocat mëno defo ci dara def nañ la def nañ la euh, député ñi dakk la assemblée def nañ la ministre ñi dakk la poste ministère ñi def la avocat ñi dakk la fa doon nga avocat tekki wo fa dara yo dañ jël nañ la sa def la xolal créer nga sa parti politique mëno dajale ñaari nit ñi lay ñow di la tàccul sax di la naan bii El eh, eh, eh, Hadj Diouf yow da nga raté ndayam yo da nga wara tecc sa gap bi nga dem nga tok sa leel bu bon bi sa leel bu bon bi da nga waxa waxa wa sa bo waxe sa jali di gëna écarté wu fen ngay def ak doul ak sos te da nga pare da nga pare da nga bon dencal Ousmane Sonko bi en salam assalamu asalaamaaleykum Fatou. naam maaleykum salaam maa ngi maa ngi lay bu baax di la nuyu bu baax a baax. am na loo am na loo door léegi di ko léegi ñaan naa la rek bul dagg foofu. waaw foofu dimbale ma rek. ndax loolu addina yëpp a bugg a xam loolu fan la toll mooy li nga doon laaj léegi maître El Hadj Diouf bii Adji Sarr fu mu toll. waaw ndax ñi toog ñi taxaw ñi jonkoon ñëpp ñu ngi toog di xaar loolu. waaye affaire yi ngi ne tekk tekk saaral ndax Adji Sarr bu yàggul ne gis naa mu def benn sinaab di fecc ñëpp di ko partagé. Hmm. léegi ñu ñu ne ma Adji moomu moo biir moo ëmb ba di nekk en mais maître El Hadj kan la yab sénégalais yi ngir yàlla ak yonent bi yéen tamit nañ leen bàyyi naxante bi te yàlla rek tax. vraiment maître El Hadj Diouf kat maître El Hadj Diouf ñàkk na jom gémmiñam gu tooy gémmiñam gu xasaw maître El Hadj Diouf sénégalais yi kii mun leen a doxaan ndeyam maître El Hadj Diouf mi lan la yaakaar. dara Adji Sarr mi toog topp ko soxlaam duul ak Ousmane Sonko àddina bi yëpp xam duul gi Adji Sarr nekkee toog na dafa ëmb Adji Sarr mi dafa ëmb. sénégalais nañ leen waxante dëgg bu dëgg jotee te yàlla rek tax. vraiment gis nañ ni yàlla moo leen àtte Ousmane Sonko. wallaahi yàlla moo leen àtte Ousmane Sonko. billaahi wallaahi ndax Ousmane Sonko defut waxut ñu bëgg a jël Ousmane Sonko rek ne ko damm niñ ma waaye moo tax xam nañ ne Ousmane Sonko billaahi doom bi yaayam liggéey kër bàyyi. wallaahi ah waaye Ousmane Sonko Ousmane Sonko kenn du moom Fatmata Danso. ndax fi mu nekk nii ñi àddina yëpp toogoon di xaar biir yi moo bari te ba léegi maître El Hadj Diouf keroog bañ koy laaj invité ko du ko laaj fu biir yi aji saar toll mu naan dama di bàyyam. Ah bu lekkee bu ne lu ma ci xam te yow nga ngay avocat yam loolu mënoo cee tontu te loolu àddina bi yëpp toog di déglu Sénégalais yëpp a ngi toog di xaar loolu. àddina toog di xaar biiru aji saar fu mu toll aji saar wasi na moom nee na Ousmane Sonko moo ko violé moo ko ëmbal dafa ëmb ba vraiment na saxante bi bàyyi leen caaxaan bi yéen tamit. lan nga wax nag lan nga wax nag lan nga wax ci ci ci chef protocole président de la république bi nga dëgg noonu ñu koy wax ni que ni fii seen nouveau recrue bi ñu indi noonu ñoo teg ko ci Facebook bi muy naa. man man man dama xam nga li tax dama kontaan ci yow. ndax yow cordo boobu toog man du ma tudd sax turam di ko may bës. bu bu leen tudd tur mooy turam ndax kooku ay view la bëgg a ut yow ay view toog naan am naa ay nangami view am naa ay nangami view gis nga view boo ko bëggee da nga koy liggéey na dem mbapat na dem liggéeyi mbapat ba yow faat mata Daal Soxo fi nga toll fi nga egsi ba moom mu mun faa egsil boppam yow da nga xuus te kenn xuus yow yaa xuusal sa bopp ba egsi ba samp sa ndënd gis nga view boo ko bëggee da nga koy liggéey da ngay dem liggéeyi ko dem mbapati ba taxawal sa bopp gis nga moom xam na ne bu waxee ci yow nit ñi dem seetaan pour xam lan la wax ci yow moo tax bul ko ko may nag tuddam sax duma ko tudd turam sax duma ko tudd. bu leen tudd turam de loolu ku ko def moom ci sama laay bi di nga ma jàppale bu leen tudd turam. li nga mel nii na la ko nit ñi xoolee yow ni nga mel yàlla la ko def kenn mënu ci dara. jeex na barke alquran. maccudo laa laal ko tuddee maccudo séeram bi di kordo ñoom ñaar kordo ak maccudo. koo xam ne koo waxal arrêté ko waa affaire lii war nañ cee jàngee lu bari koo xam ne yow koo Bilmiyorum. Billahi. yow kooku yow fan yow dang di classé kooku fan ma sa yow magam mi naan daf la may mbuba yow dang di classé ñii liy dagga seen xol bi yaa leen gën a jekk yaa leen gën a siwlise te yàlla la ko may gis nga nit li ko yàlla may nangul ko ko wallaahi yow nii nga mel te ko sa bopp yàlla moo la ko teg wallaahi nga ko nangul yow foo waxee àddina déglu fan ma sa ko yàlla moo la may loolu mënuñ ci dara nag dañoo dee rek di dinañ damm ni matta par benn benn bu soobee yàlla nag laaj sa noonu daaw yow daawaati jéeg. waaw ñëpp nañ sa nga yow nandi nga ci Amazon yi yi nga bokk yow da suivre action ah, man ku ma taal ma nga takk de man ku ma fay rek nga fay. ngay laaj sa noonu yéen sa noonu daaw bu yàgg ñoom moom moo ci def ba ci kanam rek. amul benn problème. merci beaucoup sister.